di dindi tuuma di teg li dëgg mandat bi par exemple ku ne xam na ne et c'est là où je dis un intellectuel ne peut répondre de cette qualité que s'il au moins l'honnêteté un intellectuel qui n'est pas honnête n'en est pas un n'en est pas l'honnêteté intellectuelle recommande que même si tu es partisan sur un débat tu peux pas violer la réalité de faits ku ne xam na ne ngay juriste ak bañ a nekk juriste Omar bi mu wax na ko léegi xam nga ni après le référendum de 2016 le conseil constitutionnel m'a instruit moi en tant que parce que le conseil prend des décisions qui sont applicables par toutes les autorités quel que soit le rang parce que man dama defoon mu compter le mandat de 2012 et ñu réduire ko il a dit il faut enlever cette disposition transitoire parce que ce mandat est hors de portée de cette réforme loolu kay leer na ah, bu ñu ñëwee le mandat est de cinq ans euh, nul ne peut faire plus de deux mandats non du ñu wax cinq ans dañu naan rek nul ne peut faire mais nul ne peut faire amul lu ko jiitu <laughs> ah xam nga ñoom bu ma leen toppoon kon déclaré naa bu yàgg sama candidat su ma leen toppoon ñoom du leen topp. dama leen topp parce que ñoom taxuñu may liggéey taxuñu may may may bouger.